laata sëñ euh, kilifa yi di jël kàddu sëñ daam daam seen jëloon na kàddu leeral lu bare bare bare ci sëñ Tuubaa ni ko yàlla joxe àddina ak ni barkele ay mbindam ak ay xasiidaam ba fu lu am njariñ nekk ci àddina yàlla teg na ko ci loxol sëñ Tuubaa yaquudu li manaafiul buldaani xatti bila asan wala abdaani euh, kon sëñ daam seen lañuy jox kàddu ñaari minute jàpp ñett rek mu ënnil nu tuuti mbokk yi nañ ñu jéggal bu ñu noppee jox monsieur le maire Malick Fall bu ñu noppee jox directeur général euh, di Moustapha Guèye sëñ daam bisimilah. ngir yàlla déglu leen ma wax ba àggal. alaa ji daan seen taalibe bi Cheikh mooy muy bëgg wax seen melo bésam ba ku xam te xàmmee war a xam tukkeem ba ak ñibbiseem ba ndax nga xam bésam ba tukkeem ba lam sa wax si xeeti xar baax mu ne su ko wax gëm ko doy na ak baax wajaal masiri misla ajjin wa jihaad fil ajri wal yumni wa kun lii fii tamaat wa ajjatan liman bi nuxfin irtada wa hujjatan xalaabu xaalifin xada misaal moom moo di màggalu Seex Bàmba ujaay jëlee misaal fa Makka ak Tayba ñépp ngi màggal waaye googu Seex Bàmba moo yor sirub màggal yi mooy yonent ba saxaar yaag avion yaag ñoom iliko lu ney wëlañ wëlañi Bàmba ko jagoo rajo ya ak télé ak monigaraam ak téléphone yëpp di wax ci mbiri daam borom otoog sareet ñëpp ay wàll si ak wëtiir ya ak welo yooyu dolleeku si te maxi escooter jakarta day dem njaga njaay ak tataay day dem 4x4 mercedes dacia day dem ransek hama taxi day dem ku dem ba Touba foo mën ne dal fay fare ngir di sant la Serigne Bamba kookoo gore ñi di màggal di jurus kaamil ya ñële di màggal yëkkati xasiida ya ñii wala fal di tagg say xibamba bàyyi faal saxoo si karturu yàlla ñii féetewoo bernde ya ngir ku fay gan ñu ber la bernde la bernde nag ci la mboolem xeeti pana yépp am na fa lu waay suwaa siir loo sexeer xarit ba fa café Touba Douté am na nes café sexeew meew mbaa meewum kese mburum fëriñ mburum baguette mbaa tapalapa mat leen pain wala yaay suu asiir laaxu bi laaxu soow am na na tëri ceebu ngot ak ceebu ganaar yaay suwa siir am na misi am na tufe am na it weer vermicelle petit pois ak cere yaay suwa siir am na xët am na copine am na ay naat dañ koy saaf tegal gan ñi ñuy suwa siir ndoxum xay nu raxmati ma neex na selli na ndoxum ki kireen ndoxum kokoma yaay suwa siir mboolem xeeti fruit yi yëpp am na fa mandarine ak pomme orange raisin yaay suwa siir yàlla ñu yàlla defal jàmbaar ki Cheikh Rafal